ma daal di woyaat boobu dama jékki-jékki rek ne maani abul abbasi afnal maali ah, wa afna maani shawqidal muaniya mu ne ma déedéet da ngay dal mu ma barigo bu feesee du yëngu waaye barigo bu diw dara moom ngay gis muy tëb dal rek mu ne ma tàmbali ma wat comme ni ma waye air bi mu ne ma dede nel maani abil abbaasi afna maniya wa afna maani shaw قيهذا muaniya abba الشوق ila an yakuna mulazimiya وطنب حتى سرت سكران فاحيا وقد غصت بحر الغيب في بحر mu ne ma dee koy wayee noonu. Mm-hmm. kon single bi la waaw. yoon boobu. Mm-hmm. baytu bu ma jàng ma jëlee ko ton ba mm-hmm. fépp fu ma toog sama xel da ciy demaat. muy leçon boo mokkal. muy leçon boo xamante ne dama ko mokkal. waaw mm-hmm. muy doomu Baye Mawla Cheikh Ibrahim. moom moo la tarbiya daal moom ma tarbiya ci sigar. Mm-hmm. moo a tarbiya tamit ci maarifa. ci maarifa. ma ko ciy ndokkeel bu baxa a baax a baax di wax ne man aw ma fayam. Mm-hmm. ala kulli xaalin tey bu ma demoon ba toog TFM sax. dama koy sant gërëm ko. Euh, sëñ Omar euh, dañoo nekk ci weeru yonent Eh, xanaa nga ñamal ñu tuuti rek ci li Maulana Cheikh Ibrahim Niass laata ñu ñëw ci Baye eh, li mu wax ci bi ki nga xamante moom moo di Baye Niass lu mu wax ci yonent bi. Maulana nag dafa doon jëmu joo xamante ne. Mhm. moom mooy borom wilaaya mënuñ ko xam fii mënuñ mhm. ko xam fee mhm. bu daan wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow da ngay jàpp toog ci boppam moom waxut dem na boo wax ne aka doon neex man sama jëmm ji man baaj mhm. ak tuur bii ñu may waaye mhm. ma doon ko man ñëpp dañoo yaakaar ne Mawlaa Cheikh Ibrahima bi nga xamante ne mhm. moom nañ suul fa kaw moom mooy baay ñëpp déedéet baay moom mooy ki wax ana nafsu wal afaaqu mahma raaytaha daraani fa inni kullun min indi rabbi mu ne man maay bakkan yi man maay gox yi wante man maay liggéey di janool ci xaaral bi waaye boobu noonu amul jëm amul dara mhm. fépp foo janool rek moom ngay janool gis bàyyi tam waaye moom noonu moo jékki-jékki wax yenent bi ne ko mhm. baradat minha mhm. awalan xadaratul muxtaari aynan lihaa iha foofu waxaa mu ne baradat naka yenent bi sallallahu alayhi wa sallam fenk na minha tëkkee ko ci pay yàlla bi awalan ci njëlbeen ci njëlbeen la wax de xadaratul mukhtari ci péyu kuñ tànn ki ay nan nag di jëm li ci jëm yàlla ji waaye foofu ba moom muhammad na xaaxaa sikar ko waay baradat min haa awalan xadaratul muxtaari aynan li xaa i xaa radiyallahu anhu naka leer gu sell googu noonu la sëriñ bii di wax naan ana minallaahi moom moo ko wax mhm. wal muminuuna min nii mhm. man maa ngi bàyyi ko ci yàlla wante jaami mhm. ñu ngi bàyyi ko ci man lii Ibrahima Diouf di naan magasinu pepp buñ buñ dajji pepp yaa walangaan noonu la gaañame noonu maa yi siri bar xam benn centre la rek tey ñëpp xam nañ ne maanaam courant Sénégal bi fenn lay bàyyeekoo te courant boobu noonu foo dem ci àddina bi. fii nii ci Sénégal nga fekk ko. yonent yàlla moom noonu la diggante moom ak gaañ. sëriñ bi dina ci gën a leeral si kanam. incha allah macha allah léegi jóge nañ ci euh, Baye xanaa ci suñu sëriñ Baye Barham Soxna moom am na yu ci yonent bi bàyyi ko fi. Mawlaaya Cheikh Baye Barham Soxna nag moom tamit kenn mënut ko xam fii kenn mënut ko xam fee. Mm-hmm. ndaxte moom moo di baay mm-hmm. moom moo di soxna mm-hmm. lépp loo xamante ne yàlla amal na ko ci alam bi mm-hmm. mu ngi bàyyi ko ci jëmam ji daa wax na kaw nu bi huwa markazu ruuxi aynu ayni misla aynu namri naka sama loolu sëriñ bi nga ciy déggee ci baatin loolu képp ku duhu daa arif nga xam maarifatu billaahi ndax balaa ngaa doon taalib Mawlaa Cheikh Baye Baram Toon mhm. da ngay doon julit ba pare mhm. da ngay doon taalibe Cheikhu Tidiane mhm. da tool doon taalibe Mawlaa Cheikh Ibrahim doora doon taalibe Mawlaa Cheikh nag tuuti sa yomar balaa loolu damay ziyaare Cheikh Mouhamadul Maay xaajuma ummati sama papa jooju maa ziyaare bu baax a baax ziyaare doomam sam dañas di ziyaare soxnaam mhm. a baax masha Allah toppatoon nañ ma soo soxnaam ci boppam moom o defaral ndékki ma bokk ak ñoom añ ah. masha Allah te c'était la première fois moo tax maa ngi leen di gërëm bu baax a baax kon ñu ngi leen ziyaar bu baax mhm. leen di wax ñu ngi ñëw gàmmu masha ate sañ omar yëkkatil nga tooyal جاء القديم من قديم هو الله ثم اختفى ليهدي بالأفياد صلى الله عليه وسلم خير قلقي من ربي جل جل غافل الخلق للدلال الفساد صلى الله عليه وسلم nuurul muxtaaru misaaluhu kamiyaa in shamsu fadlin fi unusin wa zidaadi bay soxna dalilu nasri dallaalama kullan xayru nasri huwa taha fil ibaadi dalilu nasri دلالما كلا خير نصر هو طه في العباد جاء الوتر هو فريد وواحي دون شفيع شاق في عين الوحاد صلى الله عليه وسلم هاج الناس بالله رشد الله ما لهم إلا دور في العداد صلى الله عليه وسلم أجد الله بما و وصف لي بالنور النبي الأحادي صلى الله عليه وسلم أجد الله معا في خرق طه روحانيون بعده لسعادي صلى الله عليه وسلم بينك ثم الأقدام جاءوا بعد روحاني تابعوا أمر ربهم من لحادي فتح الله إرادة دنيا نور طه هو دنيا من أحادي قال قل جان من المثمراج قرروا فيه دنيا طول البعد بين ساكنا روح وريحان بالعلوى ساكن الأرض هو ذو الجوزاد إن لها مستحرد صالحات إن ربي معاثل بإبادي مثل الله آدم نور طه طولهم طويلة وسوادي رضي الله عنه الحمد لله sëñ Paa Modou kontaan nañ lool Omar yal baat bi ay yeneeni yeneeni album daal di ci xam naa bu ñuy tëj rek dafay daal di tëjee single bi. ndax ah. macha allah yaa ngi koy. estatu yow bi daa mel ni moom dalaa yëngal. waaw gis naa ñu bëri macha allah ay taalibe yu ko yu ko estatu. Ah. pour sa vrai sax man xamu woon kat mooy. Omar macha allah macha allah yal na ko yàlla def mag ju am barke ndeysaan tabaat bi tabaat bi neex na. macha allah macha allah mais koo xam ne que. Mm-hmm. Cheikh As moo la jàngal moom xam naa ne mm-hmm. force da ngay mokkal. jërëjëf xam nañ ci baax a baax yal na mm-hmm. yàlla gën a wëral baat bi. Cheikh Pa xam naa ne comme dañuy waaj a tëj. Mhm. du ñàkk tamit euh, mardi incha allahu rabi bu ñuy collecturé. mooy collecturé émission yoonu bàlle yi. incha allahu rabi ñoom dalal. ñoom ñooy mhm. ñoom ñooy ñëw incha allahu rabi mhm. soxnaam ak xale yëpp. ñoom ñooy ñëw. daal di ko tëj comme ni ko daan defee. defee ko tamit ni ko suñu PDG bëggee woon. Mouhamed yal na yàlla. yërëm ko yokk ay leeram doonoon na tamit bëggoon Pa Modou ak njabootam surtout tëj bi mm-hmm. danaan kontaan te naan mi Fatou wuy bii dafa neex mm-hmm. runtu salaatu wa mm-hmm. naan bii dafa neex bi moom dama ko bëgg ndeysaan waaye nag nii la ko yàlla dogalee nañ ñaan rek. ñun mhm. nit buñ koy fekki nag. Mhm. fekk nag euh, lim ñu bàyyil fii. Mhm. topp nañ ko ni mu waree ba nga xam buñ dajee ak moom incha allah rabbi. duñu duñu rus. jërëjëf kon macha allah ah. euh, jërëjëf Cheikh li ñu dese ci ay waxtu bëreetul. xanaa rek kàddu yu mu mujj yi. ah waaw. Euh, sant yàlla rek. di julliwaat si yonent bi wa sallam. mi nga xam ne moo ñu andil texe bii. nga xamne mom lañu la ñuy dund si àdduna lépp lo waay di yek muy neex ci yow rek ci barkem la te fu way san e botam gis mu na ràññee teqale ci barkem la fi ñu toog nii tey bu waay tolloon feneen bekkaay yow yaay jóg taxaw ñep tok li ñu teqee lol ba kenn ku ne xam kan moy kan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mota moo tax Cheikh Saadu Abi fama qat maa xat fa maa xat فكيف وهو رئيس الأجوس مستنرو تمس أنت بكندور لك لن لي من دم بوزي بوزي كيسون لك نفا كيف أنا لول لك لي من أمي وهو رئيس الأجوس تمم مي كلفة من دم وكل نبي لك له رتبة ويو أحمد بينهم لك أجوس ما لي حمل لك يبقى يالبي نجي أمي أنت نحن للدرجة waaye li mu misaal daraja yi mu ngi mel ni yaa ngi am daraja yi biddiw waaye yonent bi seen biir nag mu ngi mel ni jant diggante jant ak biddiw bu jant ñëwee biddiw far du yor far wallaahi muy barkeel ci waaye mën a góor góorgóorlu si jaayante rek defal ndax loo ci def rek day nekkat si teraanga àdduna waaye dafay nekkat tamit si teraanga àllaxira ndax ñoom dañoo bëggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xam ne tey moo tax seen tur des fi موسى الإسلام شامود بامبا سيد أسيم مالك يوم يبقى يبكي لو كنا فكرت لون سنجول مكة ما نخار لك ما أهل البشر مولدي دخلت بايك أهل البشر بوم مبند ذكر النبي مرتدي ها أصل أصول سيدي حبيبنا مبجل ما نكو ما نكو دم وقت الناس لو بريش أرتز كخمنة بودي جي سني كاردون جي جزني بن بات ليدون ديفينيشن بن ليدون خير من من يشانج شوال اللغة تن ما ديفينيشن بن ليدون ما ترى يوم تيالله محمد مين خمنة موي سيد الكونيني wasaqalayni adduna bi benn sang la muy rasulullaay alaxira mooy benn sang la muy rasulullaay nit ak jinne mooy seen sang nit ku ñuul ak nit ku weex yëpp moo tax Bachir ne seydul kawnayni wa saqalayni wal farayni min urbin wa min ajimin mooy sang àdduna ak alaxira di sang nit ak jinne moo xam ngay ku ñuul mbaa mbaa ngay ku weex moo tax lii bàyyi waxoon ne mooy aslul usul nuuruhu أول الوجود وجودا وهو أصل الأصول والأنشاء مو كسانة كسانة يا دي كسانة مبولم كو أم ماي نخ ماي يمكو تو كي موتا شخصات أبني وبوشت الأرضاق والأخلاق

baay jéema ndokkel baay a soxna bara hamma dama damoon saran nara sanku baay as mo yee jox ma kurus naan ma wirdalla leeri bara hamma jéema xam ku yàlla kat moo gën ngay lambu soo ko deful dang ko reccu leeri bara xamma baram soxna junjol suñu waaji saydi baay a soxna moom lañ jagleel yoonu njub bi leeri bara xamma billaahi wallaahi soxna kara jolle ibnu baram soxna fedel nga ñu rabay dondu leeri bara xamma yet wa cheikh daan rëkk ca faas baatin ba di aas mu koy daagoo ci biir sin baay leeri yaa kaatibul xadarati képp ku ko weddi gént nga perte mbaa nga toro genn mbooloom leeri barahama gaynde ga guy ga feeñ na àll bi am na buur ku bëgg a mucc de waroon aas Leri da raji xam mari faturuhu ruuxu di a soxna ku ko weddi danga halku Leri barahama borom kam kam buñu ñu wooyewul doomi soxna danga am lula metti ku yàlla digul arjanaay baña leri barahama kartu bu jog asafimun afi afi anki bayi fode re lono leri barahama yen wa fin sant yalla yàlla mi ñu jagleel ngay kartu ñom xam nañ la may wa ah barahama boy kartu bajel jël sa foofu asafa man sirru ismullahi banca Leri barahama ñëpp bak seni bàkk seeni mbër ñu di dal wante gorgi gi ci biir Leri bara la man omar mi lima kam xam ci bi munu ko tudd nan ko nangul bara amma gejubawan gu nara barkel

xool na mbokk yi kon nag jaa ngeen jëf ñu ngi ziarwaat ñëpp di tabagal ñëpp di jox ñëpp rendez-vous suba incha allahu rabbi dinañ fi teewaat ci yeneen jotaay waaye waaw suba la ñuy nuyu waa kër noonu la ñuy dem noonu la ñuy def suba incha allah jërëjëf soxna Fatou euh, jërëjëf euh, sëñ Pape Modou yow itam macha euh, teg ko tamit ñu daal di tàggatoo ca bés booba yaakaar si yeneen invité yi nga xamante ne ni ñoom itam ci daal di zikkar ba xol yi daal di tooy ñi lay amee nag saa su nekk kon nag mbokk yi ñu ngi jox ñëpp rendez-vous suba jàmm à partir de 19 heures jërë ngeen jëf yeneen jotaay fii ci Sine يرى يتقطع عليك صلاة الله ثم سلام فإن فؤادي عندك الدار أجمع عليك صلاة الله ثم سلام فعيش بدون الحب فيك مضيع